dañ ci ànd ak euh, Abdoulaye Bob gannaaw ba ñu ko nuyoo ba noppi na moon naa ko lool xanaa rek dañ koy tàmbale ak euh, yéenekaay bi ñëpp yi njëkkalante bu ñu xëyee muy Walf Fadjri quotidien ma ngoog euh, El Hadji Mouhamadou Biteye Walf quotidien lañ koy doore mu ngi dëgtal nguurug Bassirou Diomaye Faye jubloogul ci xewum ndaw ñi yéen cabinet séminaire amagul ndajëb conseil interministériel amagul jëm ci xew ndaw ñi bokk na ci assise yi ñu jagle ndaw ñi amagul ba léegi amul lenn lu nuyoo si bees si projet Pastef soxal ndaw ñi xaarandi mu ngi ci yéen a bi di Walf Quotidien ñi a xaarandi lu yàgg laata ñuy seen Air Sénégal lim ba takku na ci ay ujaaj yu bëggoon a dem ca Makka bëgg dem taxut a dem daanaka Air Sénégal moo leen mujjee njuy ñu bari ci ñoom faf taga tembe e, ca l'aéroport ba kii di Malick Ndiaye e, di jor gi ñu dénk wàllu transport jàpp ne jafe-jafe am na naam waaye nag daañu ba gàgganti ko ba ujaaj yi mun ci e, jàmm mu mel ni las yéen kaay itam dajee dellusiwaat jafe-jafe tënk aj Makka ren ji yi maanaam ujaaj daj xeex ju métte métti seen diggante ak Air Sénégal Ourey Thiam di voyagiste xamle ne euh, nguur gu bees bi war naa amal appel d'offre international ngir lu mun a yóbbu ujaaj yi ci anam yu mucc ayib boo xamante ne jafe-jafe dootul amati saay bu aj màkka taxawee. turbine yéen kay moom lan la fasal ci xatamu. mangog El Hadji Mouhamadou bi tey aj màkka 2024 euh, cuune gi nga xamante ne moom la gis ne moom la ñu wone ci euh, ndorteel aj màkka ren ji lim bu takku ci ujaaj ba léegi mun a guñoo seen kaaba ga bokk na ci lu toll ci ñaar ñaar fukki million ya ñu ne moom la euh, voyagiste yi ñàkk ci jamono ji ñañ ñu bàyyi ca tarmac bu aéroport baak jafe-jafe ñu fay dund El Malick Ndiaye jawru ñu denk euh, wàllub euh, dem beek dikk bi xam de ne jafe-jafe am na naam waaye nag ci talaata gi ñu jëm am nañu yéene lim bu takku ci ay ujaaj muñ fee bàyyeeku wutali Makka yéen kaabi di turbine mu ngi ñuy dektali tamit Karim Wade ma ne ca Doha ak coppite mu indi ca PDS Woré Sarr jiite tul jigéenu PDS ba tax na mu fëgg ca tabal ja mbëkk buntu ba génn PDS xam ne ne lu ji njàkk du kenn ku dul Karim Wade yéen kaabi di turbine xëy duñu degtalay kàddu du Wade mi xam ne dañ jiitu ma woon di Abdoulaye Wade mënatul jiite PDS jamono ji te PDS googee sax ci ku jéeg politique bi la fare yéen kaabi di turbine nguur gaa ngay doxantu ci mbeddu Ndakaaru di bale ci jamono joo xamante ne góorgóorlu yaa ngi ci warum xayr xar gu métte métti ak tabaski bi ñu dem ci source a moom itam lan la fasal ci xëtu mu njëkk bale bi Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye jël ci jamono ji ngir setal ndakaaru bale googe war naa yegg ba ci AIBD ak la fa xew euh, jaarul ci yoon daanaka euh, lim bu takku ci ay liggéey liggéeykat yoo xamante ne lañu fay feyeku takku na lool lu jege euh, juróom-ñetti fukk chef de département ak payor gu duun lool yéen kaa moo ñu ko yëggee ak lu ëpp fanweeri directeur exécutif la xew ci AIBD daal laaj na bale ci jamono ji mu ngi ci yéen kaa di Source A. Le Quotidien yéen kaa coppite yi am euh, Ousmane Sonko euh, baleem la yor moom ak Diomaye euh, xam le ne daañu bale lu yaatu yaatu ci réew mi doore ko ci wàllub yoon ba kenn ku ne xam yaay kan loolee dinañ ko amal ci lu yàggatul xam le na ko ci bëccëgu set setal le mandat yéene kay le ne setal suñu réew mi nga xam moom la nguur gu bees bi di bàkko du guleet yàgg na fee am doore ko ci abdu Diouf doore ko ci Abdoulaye wat ba ci njiitu réew ma woon di Macky Sall tey jii nguur gu leen fii wutu bees di kilifteefu Bassirou Diomaye Faye seetal suñu réew la ñu woote yéen a bi di la mandat moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk. yor yor yéen kaay. Euh, bés gu ñu jagleel seetal suñu réew fala Ousmane Sonko premier ministre yëkkatee kàddoom xamle ne bëgg réew mi ci yoon baleelu bare bare ci wàllub yoon ba xam ñan ñoo def ñan ñoo luubal alalu réew mi njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay euh, ci assainissement set setal gam woote woo na ca ñëpp ñu koy jëfe saay su ne ngir Sénégal mun a set wecce méngoog jamono. bés bi le jour. bés biñ ko jàpp ni ki samedi gi eh, di set setal goo xamante ne daanaka jot nañ ko amal fépp ci ndakaaru ak fépp ci réew mi eh, bokk na ci askan bi ñoom eh, jot nañoo sax wane seen cofeel ci googule bëccëg ay ministre yu bari ñu yóbbu leen ci région yi ñu fegook seen askan premier ministre xam le ne fitna yi fi woon ci juin 2023 bëgg na ci indi leeral colonel Sanku Fati wax na addu ci Ousmane Sonko yéen kaab yi di bés bi le jour moo ñu ko yeggee yéenekaay lancement nañ ko door nañ ko bëccëg gu ñu jagleel seetal suñu réew njiitu réew mi ne warta yem dong ci samedi gi nañ ko wéyal weer wu jot war nañoo mën a nemmeeku gox yi fexe ba seetal ko euh, feggoog euh, armée bi. 24 heures 24 heures ne bés goo xamante ne dañ ko décrété bëggatuñu seen euh, mbalit wala boog jellu mbalit ci ndakaaroog feneen ak feneen bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Basirou Diomaye Faye. ñu ñëw ci l'info yéenekaay. l'info mu ñuy dégtal lu aju ci wàllu stabilité calendrier lu jëm ci njàngale mu kawe mi juróom-ñaari euh, dogal yoo xamante ne tukkee na ci jamono gi ñu dénk euh, wàllu njàngale mu kawe mi di Abdourahmane Diouf jot na pencook euh, kuréelu syndicat yaboot euh, njàngale mu kaw mi la ñu bëgg mooy njàng mu mucc ay te jaar ci yoon mu ngi ci yéen ak bi di l'info. ñu ñëw ci Sud Quotidien lan la fasal ci xëtamu euh, Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal euh, weer yu njëkk ci nguurug Bassirou Diomaye Faye am ñu jàpp ne taaxirlu munatuñ ko jot nañu teg cin lii ba tàmbalee liggéey am ñu jàpp ne ba léegi daanaka amal bilan teel na lool ci nguur gu bees bi ndax matalaguñu ñetti weer foofee la professeur Mamadou Diouf waxe mu ngi sàkku yi tamit ab dal ci askan wi ñu may leen tuuti xëy na ñoom gu bees presse bi daañu yéglu ba mun a saafara jafe-jafe askan wi yéen a kaabidi stade mu ngi ñuy dégtal lu aju ci Ligue des champions nga xamante ne Real Madrid euh, jël na ko euh, ñaari bal ci dara euh, la gagné yéen a kaabi moo ñu ko yëggee ci xatam bu njëkk ci jamono joo xamante ne Sénégal a ngi waajal ko wàccaayu mondial 2026 Sénégal RDC gaynde yi yegsee gum ci tanière bi yéen a kaabidi stade moom la xëy di ñu jàngatal yi tamit ay footballkat yu bees ci équipe nationale moog fi ñu jeexale xeetu yéenekaay yi El Hadji Mouhamadou bi tey daañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo bale gi ñu doon amal keroog euh, gaaw muy samedi